su ma fenn rek day xam damaa fenn ki gën a ki gën a mag sama si ñi ma laal am nañu ay am na am na am naa ku ma laal ko xam ne am na cinquante deux ans sax ma damaa kii de. ki gën ndaw nag. ki gën a ndaw. sama jëkkër bi ma njëkk am loolu dafa garaaw sama jëkkër bi sama jëkkër bi may jébbal dafa mel ni baaw sama jëkkër bi may jébbal moo nekk nii tey quoi affaire bu garaaw moo tax ne jigéen dañ koy dañ koy maîtriser dañ koy mën. jigéen na nek mak na nek jeeg na nek boy xalé bu ndaw bu tuuti mais na ko maîtriser da ko téye ba xamal ko loo xam du jóge ci yow dégg nga wax da nga xamal loo xam du jóge ci yow asalaamaaleykum euh, mbokki internet yu euh, Sénégal TV euh dalaat len jàmm ci sen émission amul tabou émission amul tabu comme nous len émission pour garawa garawa garawa garawa garawa garawa garawa be ñun toujours dañuy def interdit au moins de 18 ans ba noppi bind si suuf amul tabu la avertir na la waye la dañon ak bañ mu dal porno dal film ñëw na doom ji nekkete da ngay jouer pour noo doom ji ne ko bàpp noo dem ba xam ko donc am na loo xamante ne ni jarul sax di commenter parce que euh, français bi dafay wax ne l'homme n'est ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait mais ce qu'il cache loolu nag suñ ko tekkee si wolof dafay nekk ne nit ki lii lii lii li lii bon si moom li mu gën a nit ki loolu buy sangu euh, di ko simbi jikko donc amna lu bëri lo xamantene ni yaa ngi koy nëbb bëgguloo kenn xam ko noonu lay amé ci nit mu taxaw wane li nga xamantene ni mom neub ko wax man ni la mel li moo nekk amul tabu dal boko ko ci ak gatt rek moy amul ay fen amul fen dañu wax deug deug deug kessé un homme averti nak en veut deux comme ni ma koy waxee ndax ki ñuy invité sunu émission toujours dañ koy avertir nekk ah émission bi dafa garaaw de te ba si sa sëti sëtaati sët yi mun nga seetaan émission bi donc wax nañu ko du koo xamante dañu ñëw rek dugal ko si émission bi teg ko ne ko émission ba émission baa ngi noonu euh, waxal après mu ki nga xamante ne nag moom lañuy ñu invité tey suñu émission amul tabu mu ngi nii. ku baax nuyu naa la. maa ngi waaw est-ce que mën nga présenter wu si mbokk internet yi nga xamante ne ni ñoom ñoo lay seetaan. waaw maa ngi leen chair maa ngi leen bëggee yéen waa Sénégal TV maa ngi leen di maa ngi leen di ño daal ndax yéen seen émission bi macha allah seetaan naa ko tubaab bi macha allah moo tax ma am sañ-sañ sax toog ne xaar ma ma ma ma def ko ndax lan li.

waaw sëñ Babacar su man question bi ma la war a posé mooy lan moo tax nga ñëw ci plateau bi wax nga ko waaye dégg ak dund bokkul yaa ngi war a dund obstacle bi noo ko xalaatee. dafa garaaw émission moo garaaw si boppam moo tax ma namm def émission bi man man dama namm def émission bi ndax garaaw garaaw bi Ousmane di wax boobu laa bëgg a génne waaw génne garaaw garaaw boobu noonu teg ko si taawul bi ñu xam ni garaaw na te def. Je amul fit doo def ah amul fi doo def yu yu te day nag day tasaare waaw ca leen voilà kon euh, dégg nañ ko maam Khadim lan ngay poser euh, Babacar comme question. waaw Babacar li ma koy poser comme question mooy est-ce que xam na plateau bi mu toog ndax émission tabu ñi fi jaar après kat dañuy xaw xel ñaar est-ce que yow xam nga plateau bi nga mu est-ce que ngi à xel ñaar. si leneen ngi si. voilà euh, sëñ Moustapha lan euh, nga koy poser comme question. man question bi ma koy posé mooy maanaam lii après naka nga koy dundee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan ñoo nekk sa proche naka nga koy dundee ak ñoom. maanaam ñoom ni ñu koy dundee nañ ko ñi

bu baax sangal quoi bu baax damaa bëri damaa bëri ay taalibe de. ji ah. may si ah. <laughs> ay taalibe ah. am naa taalibe yu bëri dañ may man nag la ñuy bëgg ah. waaw am na yoo xam ne boo ma si duggee rek <laughs> damay damay damay. léegi ñu dem si ayatul kursi yu. yeey acca onze billahi mina shaytan rajim bismillah bismillahi rahmani rahim ala salli ala sayyidina muhammadin al-fatih laten gaan geven. Heel die laatste laat ik hem staan, want die gaat بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يصفه عنده الا باسمه يحلمون ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يخطون بشيخ من ذمهم الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يحضره بزوفما وهو عليه عظيم سماي سرين نادي sëriñ Babacar dafa mel ni sa yaram dafa tàng bu baax fi mu nekk nii baax jërëjëf ndax am nga loo xamante daf la neex sa rek sa xel dem def xam mieux cheikh pour gis naa sa yaram dafa tàng fi mu nekk dafa neex loolu gëma loolu sax la neex def xam mieux cheikh Cheikh Tidiane pour ñu naa non du dem damay dem ndax moom daa bëgg. xatmiya bi na la demee woon. xatmiya bi une semaine la une semaine ma ma koy ma naan waaw man est-ce que Dakar laa koy def est-ce que ma dem dafi ko pour ma dem ma demee pour wax ko waa pour waa pour tamit ne jàppale da ngay def. ma woo sama gars yi fii Dakar ne leen pour laa koy defee waaw ñëw leen fekk si ma Pout. waaw Pout balaa ñuy sori rek Pout mooy dëkk ba nga xamante ne ni euh, waa ji dafa doon tukki euh, ba mu ba muy tukki nag euh, mu fàtte turu dëkk bi waaye ba muy yëgsee ba ba foofu rek. xale bi ne Pout mu ne waaw waaw justement dëkk boobu laa jëm. boobu fekk ñu koy laajte. waaw léegi nga ne Pout waaw ba nga defee xatmaya bi. on est xatmaya bi xam bi bon sant yàlla après ñu ne si ma dafa ma neex man loolu moom gën a neex ah naa wax. donc maanaam yaa ngi si ñaata édition ñaata depuis combien d'années. sa première première année. sa première année. jërëjëf date bi date bi kañ la woon. Euh, Magal Touba 18 safar. 18 safar bi nga ko defoon am réussir ñëpp ñëw. bu baax. nga rendi ay nag defar ay ay lan nga. dañuy doog a commencé xam naa ni affaire yooyu ñëwagul ay rendi ay nag ak yooyu ñëwagul waaye nag macha allah tubaab kàlla damay ñëw. kon yow Serigne Babacar la directement wala dafa dafa am ku ñëw tuddee ku tuddee sëñ Babacar. waaw man mën naa ne euh, sama tur fu mu jógee dafa xaw a yéeme ba benn instant sax ba si wax bon du ma du ma jooy ndax ñu euh, <laughs> ngi si émission boo xam ne amul tabu boo jooy rek yàqu nga ko. waaye fi ma jógee sama tur fu mu jógee moo garaaw comme ni nga waxee garaaw garaaw garaaw sama tur fu mu jógee dafa garaaw. wax ñëw nan la tur fan la tur bi jógee. Euh, sama tur fu mu jógee mooy sama papa. bu ma bi ma amee si ma biiru yaay quatre mois la génn àdduna ñu duppee ma ko dégg nga wax ci affaire bi ñu dem may màgg sama yaay di ma di ma di ma di ma di ma comprendre di ma waxtaanal si sama papa di ma waxtaanal moom si boppam mais affaire bi yéeme su ma waxee day day day dama si kii quoi. dama si kii quoi sa papa lañ la tukki tukkiwaat moom nan la génnee àddina. waaw sama papa instant ni mu génnee àddina dafa dafa dafa dafa triste maanaam papa ni mu génnee àddina mooy dafa ñëw dafa reer rek ak Mouhamed dafa reer ñu tegal ko cere mu reer noonu. daal di ba Cheikh la. jërëjëf noonu la demee sax ak Cheikh la. vite fait amoon ay su ay su vite fait te doul barki Mouhamed bu mu reeree foofu la ki waaw ci palaat Filiane bi mu tëddee bi barki Mouhamed fa la waaw. mu mel ni que euh, mu mel ni que l'histoire ne ment pas. li nga xamantene ni xew na. te mom fekke ko bo mu ngi am ñeenti weer ci birum ndayam mm-hmm. mu ngi si ñaati at yaa ngi si ñaati at. maa 34 ans. mu ngi si 34 ans. loolu xam na ko mu ngi koy nettali ba tey émission bi tamit noonu lay demee. di wéy ñëpp di lay seetaan ndax Babacar pare nga pour ñu dugg dëggantaan si émission dañu si dugg sax nag ndax loolu eh, moom a gënal ñu dugg si ndax gis nga Ousmane amul lu muy nëbb donc émission bi nan la tudd amul tabu amul tabu bul nëbb dara sëriñ Babacar ndax di nga toog si mënaanu wasifa bu baax kañ nga gëj a toog si wasifa man sa ma damay da ngay def waaye nakat pénitentiaire bi mën na bëgg ndax kat su mën na bee rek après mën ma fen sama biir bopp pénitentiaire ma jàpp jàpp boo xam ne du ma demoon balaa nga wasi ko waaye dama koy matal. kañ nga lan lay gën metti si àddina nga koy lu ma gën a métti si àdduna. te doo ko fàtte mu te du ma ko fàtte mu man man de sa dëgg-dëgg man amul lu may métti de loo xam ne dinañ métti métti xanaa kay loo xam ne dama koy déggee mu may neex may dox di dem mooy liñ naan yaay góor bu liggéeyu kër baay yow doom ji fexeel ba génn sa bopp. jox ko ni yow yaa liggéey est-ce que dégg nga ma. waaw ah, waxaatal mu ñëw. yaay booy boo liggéeyul woon si kër baay donte liggéeyul kër baay waaye yow gëmal sa bopp teg sa bopp liggéey ba jàppale ko ba nga xam ne moom dafa liggéey kër baay est-ce que dégg nga ma ba dégguma wax ji waaye nag euh, du man rek am na ñoo xamante ne ni euh, peut-être ñoom ñu ngi lay dégg te comprendre nañu exactement li nga bëgg a wax. donc euh, tant mieux bu fekkente ne ni comprendre nañu waaye euh, Babacar euh, may bëgg a xam yow exactement bi nga xamante ne ni màgg nga nga xàmmee gisuloo sa wéyjur mu génn àdduna si sa ginnaaw Amna na ay ñaawteef yoo dund si fi la yaree nu ñu la yaree yar bi la yar yar bi def si yow tay. gënal na la wala gënalu la. ak nu kay ak gënal man sama yaay moo yar en même temps. samaya mayam damaa am sama taw du nekkul taw si sama côté papa waaye sama côté yaay moo nekk taw góor ñu ko wax bay sàmm kooku mu nag moo ma teg si kooku moo ma yar mooy sama sax kilifa laay wax mooy sama kilifa. maanaam sa mag bu góor moo la yar. jërëjëf ak sa yaay. merci beaucoup jërëjëf maanaam li ñuy wax naan mag dafay taxaw taxawaayu. bàyyi. maanaam moom dafa sol euh, dalam. alors euh, dalu wéy juróom. mu jot si moom sëkk. mu daal di doxale comme na góor ko doon doxale kon yow tumuraankel loo ak yar mais euh, sëñ Babacar ba léegi rek am na loo xamante ne ni si sa àddina dafay ñëw sa xel souvent moo xam bàkkaar boo def la moo xam lu neex loo def la moo xam leneen la am na luy ñëw sa xel souvent di ko di ko neexal wala di ko naxari loolu lan la bon li kii li neexal sama xel maanaam li nekk sama xel loo xam ne moo koy neexal bëgg cheikh bi de su may toog di di di wér barke Muhammad sama xol day neex ndax xam naa ñi ma koy àddi xam naa tamit ñi dañ koy jël ma loolu daf may neex waaw loolu xam ne nag day day naqari sama xol yooyu yëpp teg naa ko feere bi amatul si man de ñu naqari sama xol de amatul de amuloo dara looy fàttaliku loo xamante ne bi lu naqari sa xol la lu ñu la def wala loo def nit yow mu naqari la nga tooñ nit te nit kooku nga bëggoon ko baalu gisatuloo ko wala nit tooñ la nga bëggoon mu baalu la te gisatuloo ko ndax loolu dalu la si àddina waaw euh, man mos naa ameel nit boor tax kat ma nëbb mos naa ameel nit boor waaw boor bi yàgg na woo na ma téléphone ba sonn jëruma ko ndax ku yéeme nag laay doon nii mais nag ko baax ndax euh, loolu baax rek moom du ma wax tur woo na ba sonn jëluma ko jëluma ko jëluma ko mu daan may bàyyi te barke dama koy fay bor bi waaye nag jamono jooju mën ma koo muyu te man maa ngi xaw a xam nga maa ngi xaw a kii maa ngi xaw a sant Diop mën ma koo muyu te su ma muyoo danaan ma foo nekk looy def nii jàppal bàyyi du ko mën a muyu ma of ko mais nag moom xam bu ma seetaanee xam na ni man sama xel mu ngi si moom te dinaa ko fay. incha def na ñaati at. waaw waaw def na at de. xam nga bor bi ñaata na sa xaalis. Eh! amul tabu. amul tabu bor la de. ñaata la xaalis bi. Eh! sëñ bi. amul tabu. bor la de. ñaata la sa xaalis. Eh! sëñ bi. <laughs> waaw ñu ngi si amul tabu. borom daal ñaata la si xaalis. ah sëñ bi. amul tabu. ñu of ko amul tabu. amul tabu. waaw mooy amul loo xam ne da nga koy waaw waaye bii nag ouz nëbbal ma ah bii nag sëñ euh, Babacar bu ñu ko nëbboo rek internet yi dinañu mere. parce que concept émission bi. Mm-hmm. mooy yàqu daal mm-hmm. dëgg internet rek nga wax leen. bor euh, bi ñaata la si xaalis. suñ ko dajalee bor yi ma yore si Sénégal ñëpp xam na maa leen ko yoreel dina mat si un million deux cent man Babacar Ndiaye te incha allah rek lan dama koy fay. un million deux cent. loolu métti la. méttiwuma ndax yëguma ko sax barki Mouhamed dérangé wu mais léeg-léeg ñu woo la téléphone. voilà jërëjëf du ma jël. lan moo tax doo jël. waaw day fekk instant boobu xam nga. waaw su ma ko jëlee tamit daf may bee bon day xam nga day xaw a jaxal sama xol ta sama xel tam maa ngi si yeneen su ma amee nag damay ñëw ne la am naa ko am Ousmane am naa xaalis jëlal yaa ko moom waay. Euh, ndax mës nga jël bor ba mu yegg si 2 millions 3 millions nga fay ko ba mu yegg foofu. wala déedéet déedéet mësuma koo def noonu. ñaata nit loolu nga amee nit si lu gën a bari si sa àddina un million ñu teg. waaw te loolu du benn du benn nit ay nit la quoi yi daje la quoi. teg ko noonu la. xam nga sax. waaw un million deux cent du xaalis. waaye nag jamono na fekk mu toll fa mu nekk xaalis ndax nit woo na ma rek lu yàmbul fekk ma yoral ko weccit woo ma ne ma maa ngi toog sa ak sama soxna barke Mouhamed mais boobu daf ma déranger ndax maa ngi ndékki ak sama woo ma ne ma allo Babacar kañ nga may fay sama xaalis non te xam nga ñu ma ko yoreel ay weccit barke Mouhamed. lu gën a garaaw mooy 5000 laa ko yore woo man kañ nga may sax loolu nag dafa métti gain boobu ba léegi mën na ko off jox naa ko mais dama ko off. Euh, bokki internet yi yéen a ngi toujours si seen émission amul tabu amul tabu mooy amul fen mooy amul nëbbu commentaire yi ngeen def yëpp seetaan nañu ko waaye émission bi li ci nekk liy jàngale moo ëpp li ci nekk luy yàq yaawlul baa bi yéen borom xel nag yéen la waxal. amana ba ku nek nak famu mu fa lay waxé nangul nañ ko ko ndax émission bi moy émission tabou tabu ñu né ñun kenn du tabu ñun ñu né leen yéen da ngeen tabou wax leen li nek seen xel wax leen li nek seen xol gis leen li ngeen gis ñun ñi gis li ñu gis wax li nek suñu xel wax li nek suñu xol waaye di tere suñu émission ñu ko changer du tax ñu changer ko parce que xam nañ ci concept bi mu tegu te xam nañu aussi si li ñu ko teg euh, kii di wax nii Euh, nit la bu nga xamante ne nii ku baax la daf maa fekk démb si marché bi maa ngi dugg ma ñëw di jënd génne sama xaalis mu ooma ci pet ne ma dama bëgg nga jënd nga jël li nga bëgg a jël ma fay ko ma ne man te c'est la deuxième fois c'était la deuxième fois man damay dugg yóbbu sama kër mu ne ma euh, bu njëkk bi daf ko fay si xaalis dafa insister ma ne ko non bii mu ooma surxu ma kaay ma ñëw mu ne ma jëlal man naa koy fay ma ne ko non mënuloo ko def defaat ko mu ne ma non non tey ñaar yëpp nag nekkul dañoo ànd de mu ñëw non dafa may fekk juste si table bi maa ngi jënd mu ñëw rek dikk ma ginnaaw ne ma eh, ñaata ngay jël man naa koy fay bii nag mu insisté ma insisté mu insisté ma insisté mu insisté ma insisté mu xëcc ma ci pet xëcc ma lu tolloo ay 30 mètres ne ma kii daf ma ameel xaalis si li may liggéey si la ma leb mais xam naa ne du ma fay te bugguma àq ko parce que xam naa ne këroog yomal xiyaam dina ko layoo moo tax ma bëgg nga jël ko marchandise pour mu wàcc ko kon moom bu waxee ne dina fay te xam na dëgg la ñàkk fay bor boobu fa mu toll kon soo waxee ne danga fay man gëm naa la ndax loolu nga xamante ne nii wax nga ko te démb rek la tey ñu def émission bi kon Serigne Babacar gëm nga ne kooku di nga ko fay mais nan nga ko lebe si lan da pour lekk ko da nga ko leb fay si luyaas da nga ko fay pour noos da nga ko fay pour dem si yaag sa gel lan ak lan moo tax nga mu toll noonu parce que man mii nag ameluma kenn dërëm macha allah benn fistine ameluma ko doomu aadama buy dox ci kaw suuf loolu yàlla defal na ma ko alhamdulilahi rabil alamin sant naa yàlla lu tax mooy bëgguma daray kenn man su ma amee kilot sol su ma amee gerte jaf yi amee café Touba naan lu ma am ameluma kenn ab dërëm man maa ko wax loolu la yàlla dogal dërëm laa la dërëm abel abel ma ko bor te loolu ba ma amee fukki at ak juróom ba léegi xàmmeeku noonu laa yore samay doom noonu laa yere si ku ma xam du ma leb soxlaa ma xaalisu banque soxlaa ma xaalisu kenn soxlaa ma dërëmu kenn sama dërëm doy na ma nan la demee ba boor yi demee noonu. Euh, man nag boor bi nu mu demee mooy xam nga businessman la man vendeur la jël jaay laa mais tamit jël jaay bi dama ko doon dama ko doon def ay at jël di jaay jël di jaay benn maire bu baax bàcc moo xam ne woo ma ne ma. ñu dañoo dañoo damaa dem këram di ko jaay parfum boo ko jaay ba pare bu jënd ñuy waxtaan mu ne ma bul jëndati xaalis kenn naan yaa ngi koy marchandise bu kenn naan yaa ngi koy jaay maa ngi lay fay Babacar bu ko defat yow sama doom nga dama lay wax te ab joolaa xam na liggéey rek lay xam mu ne ma xam na looy defati ma ne ko waaw mu ne ma yow xaalis bi nga yore su fekkee sax dix mille la bi nga yore na nga ko na nga si doylu nga jël sa marchandise bopp dem jaay barke Muhammad moom ko wax nii ma ne ko waaw loolu de boo ko waxee dinaa ko d'accord ndax man sama xaalis bi may faral di jënd man si laay am bénéfice te si laay nekk sax en si laay xàppee euh, bi ma ko waxee ma commencé ko def billaay wallaay ma commencé ko def gis si résultat barke Muhammad fu mu nekk macha allah tabaaraka nam ma dara damay sóobu nii ak kii mais nam ma dara maa ngi dem mais li may wax nam ma dara bu leen def ne am naa xaalis bu mu fayee bu ma leen mais naa leen fay sama mbokk yi ma yoroon xaalis sama gaa yi nga xam ne yoroon naa lay wecc non dinaa leen fay waaye nag na mu ma dara de. voilà muy li olof di wax learning euh, li anglais di wax learning by doing maanaam si li ngay jëf si ngay jànge si la daal si nga jànge mm-hmm. moom am na ay erreurs yoo xamante ne jar na ko si wàllu commerce

daf ma tooñ tooñ bu metti te xam naa dina ñëw si man baalu ma parce que daf ma tooñaa sama goro daf ma tooñ mais maa koy euh, remercier waat de passage fàttali ko ne ko daf ma defaloon teranga en mille cinq 2005 cinq daf ma fekk maa ngi toog marché di jaay ganaar mu romb deux trois quatre fois yoo xamante ne nii bu ñëwee day gis euh, ginaar yi nekk ci kaas euh, gi donc mu gis ne daal ñetti ginaar rek laa am quoi mu woolu ma ci këram ne ma man dama yor fii benn natt boo xamante ne nii euh, doyoo ma ko dara daal te gis naa depuis trois jours euh, ñetti ginaar rek nga yor fii sa place bi quoi est-ce que doo ñëw nga jël xaalis boobu noonu euh, nga liggéey si ma kontaan lool ma ne ko gërëm naa la sant naa la waaw ma ne ko gërëm naa la sant naa la gërëm naa la sant naa la mais xaalis boobu jël ko nga utiliser ko si sa bopp jëluma ci benn dërëm amuma xamuma loolu sama dund xamuma loolu ba jamono demee nag ba dox ñu séq teraanga bu bëri ma yëkkati lu tolloog 2 millions daal di ko koy jox ñu ngi si émission amul tabu mu jël xaalis ba daal di koy sàkkal pexe def ko neneen kooku noonu mooy li nga xamante ne nii def na ko mu naxari ma lool donc dañu nekk si émission amul tabu rek fa ñu jaar ak la tax ma wax lii nii xam nga ko xam naa ko dafa am loo xamante ne ni góor bu la ko defee am na leneen loo war a def sa diggante yoo wax moom waaye du lu du lu du lu ni mel li nga def ñaaw na lool goro sama sama xarit nga nag sama chéri nga waaw parce que ki la tudde doom bañu la ndax fi ñu jaar moo tax waaye def nga lu ñaaw a ñaaw nag goro léegi nag Serigne Babacar ba léegi rek ñu nekk ci wàll bi nga xamante ne ni ñu ngi xuus dugg ci biir émission bi. am nga koo tooñ mm. mooy ñooñu nga xamante ne am na leen ay bor mais am nga koo xamante ne ni aussi tooñ na la bu baax kooku kal na waaw euh, amul tabu bi il faut nga wax il faut nga wax pour dina li nekk wax xol da wax waaye nag euh, man tooñ bi ma tooñ mooy bor xam man si wàllu bor rek laay laay laay laay jëflante waaw si wàllu bor rek laay jëflante am na ñoo xam ne dañ maa yoreel bor fayuñu ma mais nag bon man li ma jàppee sama bopp mooy comme exemple man ñi ma yore man ñoo xam ne man daf leen yore ñu bàyyi ma si biir man noonu laa leen bàyyee si biir ñoom ndax euh, damay def ni rek bon dañoo yoru xëy na bu ñu yoree dañ ma dañ ma fay man loolu laa jàppee ma ne man li ma jàppee ni man damaa yorewul loolu laa jàpp ñoom dañoo yorewul dama leen woo sax duñ ma wuyu comme dab dama leen woo bon duñ ma wuyu ma xam ne ah bon man li ma doon def est-ce que du loolu la. man luma fu la jappé ya. donc amna ci ko xamantene ni yorel na lu toll ci ñaata te bëgg nga mu jox la ko tay oh oh oh oh na ci toll ni non euh amukuma yorel amukuma yorel 50000 de man kay ma yorel la mais am ko xamné yorel ma 50000 sax voilà donc li la metti moy ñi la yorel yow tamit te ñu la yow am ño xamantene yow ya leen waye fayu lo leen mu melni que rek li yi di wax

ak euh, alquran fan nga yem. waaw français bi nag sax laay njëkk ko wax français bi dama see ayu ayu ma cm yem da sax CM2 bi déggu dégg waaw sama teel a bëgg xaalis xaalis moo ñu sonal te xaalis ñun xaalis dafa waroon daw suñu ginnaaw mais ñun ñooy daw si ginnaaw quoi moo ñu sonal bon alquran nag jàng naa si tuuti yoo xam ne farata daal ay farata. comme mooy def mooy jullee comme saa yi nga war a tari ñaan affaire yooyu noonu daal jàng naa si tuuti ah c'est vrai. jàng nga si tuuti lii nan lañ koy wax si français. eh eh eh. lii moom tudd sax si olof ba pare. Eh, lii yaakaar naa jinjeer la. jinjeer lii. mbaa du ma yàq émission man de tamarin laay wax man tamarin tamarin mooy daqaar waaye lii nag lii njeer la. lii nag. waaw oh, lii aay la man ñoom jaay naa aay laaj jaay naa aay. aay waaw. lii. maño. maño bii. lii. ceebu kii ceebu suuf kanja suuf kanja kanja. kanja en kanja kanja français la c'est kanja ou bien c'est français. Lit, carotte li, limon citron comme comme comme, voilà donc euh,

non kooku damaa kontaan ma dem tabaski ji boobu noonu damaa kontaan sa dëgg-dëgg fekk maa ngi jaay ay eau ay tubéy xam nga affaire jigéen yooyu noonu yaa gën a xam xam jigéen ñi daay nekk toog lu bari di leen jaay jaay jaay ba dajale sama xaalis bi dem tabaski ji boobu nag la mosu kontaan si dajale ma dajale sama xaalis foofu waaw mais après xam nga yaa gën a xam yàlla dafa def jël baax rek def na maag moom. may moom bari na xam naa si dara léegi ñaata la xaalis boobu toll. xaalis boobu bu ñu toll day nekk si bariwul bari boo xam ne jël na ki mais am na 400000. donc cent mille mooy somme bi gën a bari ci li mu téye si xaalis nga def si lan ci 400000 yooyu noonu. 400000 bon jënd naa si xanaa jox. jox naa eh, hmm. si moo su war a jox xotti naa si def naa si li ma ci def moom des benn ham boo xam benn benn xaalis boo xam damay ñëwaat Dakar pour jëndaat naa si bis waaw. voilà sa waajur bu jigéen mu ngi dund wala dundul. sama waajur bu jigéen mu ngi dund maa ngi ñaanal ku dund dund fi fi te wér. ndax am na ku koy denc fi mu nekk nii borom kër. waaw ah, déedéet moom génn at ma ki ko daan denc génn at ma. léegi sa borom wayjur wu jigéen boo ko gisee mu toog noonu te amul beneen borom kër nan la lay def. Euh, bon du ma ko ñeewantal bon loolu noonu day ci ma. xaw ma xëy na kii ma ah dérangé wu ma. waaw benn égoïsme boo xamante ne nii xew na dans les familles africaines seen waajur wu jigéen bu génn euh, bu nekk bu desee fii ci àddina maanaam seen waajur wu góor génne àddina du ñu fexe nu seen waajur wu góor euh, amee ko ko remplacer du ñu fexe seen waajur wu jigéen am borom kër ñoom dañuy tëdd tëj seen bunt bàyyi seen waajur wu jigéen moom rek mu nekk fële di dund leneen ndax boo doxoon ba dégg sa yaay mu ngi mooy lan la lay def. Eh, Eh, dina garaaw de est-ce que utal ko boroom kër gënul nga dox ba dégg ko ci loolu ah waaw ah, dëgg la de waaw mais euh, sama yaay de moom sa dëgg dëgg am na quatre-vingts nangam la xam nga léegi meer la mën naa am cent ans sax wala cent soixante ans sax fekk da koy soxlaa ủa <laughs> em Sơn đóng mới giáp đó mà. Đóng mới dắt em Sơn à. Cái đó là gì vậy đó thì. Mà rồi mà rồi giáp lúc ấy lúc ấy giáp thì biết lại rồi. Tại em chọc là camera mà mà ngoài thì. Mình nói em trong là camera đi. Mà còn một thì nó nó sẽ nó sẽ sangat menarik. Oh saya saya. Mungkin ujung kamu cakap apa? Mungkin siapa? Mungkin siapa? Kamu surat. Kita bayar. Dia surat. Nah, no. Sejak bawa kerja, kami surat. Lalu mereka dah kamu nak am. waaw waaw ñun su suñu xalaat ak suñu bëgg-bëgg rek la ñuy di mesure affaire bi foofu noonu est-ce que waruñu weesu foofu noonu est-ce que bu ñu bu ñu doon ut ay nit pour ku ko xamal fu mu jaamoo yàlla wala fu mu xamalal bi ñu koy wax am na lu tax dëgg la dëgg la dëgg oh. la ndax lan moo tax li fi amoon mag ko def ñu bëgg ko fi jël la dëgg la dëgg la bon man li may wax mooy euh, maa ngi jégalu sax damay sóob sóob man laa damay sóob euh, gis nga ki ki ki

dama ko doon pënd xatal nag benn instant mais xam nga rek eh, <laughs> xaw nga la bàyyi bëf mu dem. d'accord euh, maanaam doom yu góor yi. Mhm. amuñu muñu ci seen euh, wéyjur wu jigéen mhm. beneen góor tëj bunt bi. alors tëjoog moom si lool dafa garaaw ne ah. sa wéyjur wu góor dëddu après beneen góor bi bii loolu di am ñaati at nga am yow.

nga bañ. léegi après nga nangu. waaw léegi ba ngeen demee bu dund yow ak paa ba mu miin la nga miin ko. waaw est-ce que bàyyoo ko léegi. ko bàyyoo oh daf ma neex paa ak wàlliw la <laughs> après daf ma neex ndax li tax mu neex mooy man paa bi bu ñëwee sëriñ bi indi paa bi bu ñëwee xam nga waxtaan yi muy waxtaan ak man. ma delloo xam nga di waxtaan ak man quoi comme si sama papa la daal man ma dem ba jàpp ko sama papa ak moom tamit paa bi ay doom ñëw xam nga affaire bu fa nekk fan tam xam nga bàyyi dañoo mën affaire te macha allah tubaarkalla mu jullite xam nga yooyu yëpp ma ngoog daal ba pare di def nag di def. di def quoi macha allah. mu mel ni que ba Babacar laal na point bu sensible te am solo paa bi dafa jullite. paa bi day def. paa bi daf ko bëgg paa bi daf ko côtoyé paa bi daf ko xëcc si boppam nekkul paa yi nga xamante ne dañuy ñëw pour lekk ay ganaar nekkul paa yi nga xamante ne dañuy ñëw pour noos nekkul paa yi nga xamante ne dañuy ñëw di laaj meer bi nekkaat man ak sa waay ku man ku gën a safle ku gën a neexle fi ma lay jàpp est ce que sa waay daan la fa téye am na ñoo xamante ne ay saay-saay lañ waaye nag képp ku def lu ne mel jël jot demuloo julli ji jël nga nekk si jabari jàmbur euh, yoo xamante ne nii boromam génn na àdduna nga doon na ko waaye waaye da la wóor ne bës a ñëw lu ni mel arrivé la si sa adina te ko rok yomal xiyaam dinañu la laaj na nga ko yore woon nan la ndax kat bu fekkente ne da ngaa ñëw ngir noos wala ngir sa bakken tax la jóg ah bësa ngi ñëw sëñ babacar loolu weesu baa boobu noonu génn àdduna nga ñaanal yàlla xaaral nga àjjana est ce que dem nga ba jàppe ko sa papa kooku bu baax ndax sama papa la ah après damaa xamul quoi mais après dama sama la quoi sama la xamul ma xam nga ràññee xam ne papa la. bi mu xamee ràññee xam na ne papam la kon bu leen ragal dem leen jël mairie ngeen takk leen mais su ngeen demee nag na ngeen na leen diina ñor na leen yàlla ñor na leen def si kër ga tamit ñor ngeen bañ a ñëw rek jaaxaan ne yàccaaral xam nga di commande di di di di bëgg ñu lay toppatoo te doo toppatoo bu boobawee ah dafay xaw a doy waar waaye nag am am tamit yemul léeg-léeg mu am ñoo xamante ne nii bëgg nañu yor njaboot gi mais yalla defe na euh, sen sen am am matewul manewul waye ñoy tamit ça ne veut pas dire que duñu ñu leen jox doomi aussi dañu am compréhension bu toll ni xam ne seen yaay nekk si buumu sëy moo gën fouf ñi di koy dégg ci naka sonu dul noonu léegi nag euh, nga dund ak góor gi mu génn aduna sa wayjur génn aduna Babacar defuloo constat mais de def ñoo fi des pas yëpp génn nañu àddina. merci beaucoup waaw mais li tax loolu sax man dafa yéeme mais émission bi il faut loolu ñu ci wax. loolu dafa garaaw man loolu rek laa def constat si xam naa. ñun ñëpp dañoo seetlu ne. paay mhm. yëpp dee nañu. jërëjëf mais rek ñoo fi des. yow pour yow lan la. ah. sama garaaw na de man de loolu sama xel bon xóotu si daal waaye man est-ce que dama est-ce que duma jàpp ne comme exemple ñoom ah fan ñuy gàtt rek xam ne xëy ma see ma si de. Euh, sëñ Babacar mm-hmm. loolu moo waral tey lii tegu ci kaw taabal bi nii loolu laa lay leeralal tey loolu laa la bëgg xamal li waral loolu tey képp ku nga xamante ne ni doom nga ngay doom ju góor képp ku nga xamante ne ni wéyjur nga ngay door a dugg si néegu sëy jàppal yi ma lay wax nii te bul ko teggin bul ko bàyyi soo buggee gudd fan parce que gudd fan dafa mun a nekk yàlla sàkkul fu muy reye ku góor di bàyyi ku jigéen wala fu muy reye ko jigéen euh, di bàyyi ku góor donc dund da nga mën nit dafa mën a dund téeméeri ak par force loolu mun na ne man maa leen ko wax nit dafa mën a du gudd fan gis nga sa hygiène sa santé sa bopp sa xel boo ko toppatoowee boo amee une objectif boo amee nooy dundee nooy xalaatee nooy gisee àddina dangay dund te dangay gudd fan dem na ba ci soxna yi ñaati soxna nga am nan ngay yore soxna yi lan ngay accepter pour soxna yi lan nga dul pour soxna dem na ba ci dëkkandoo yi lan ngay accepter pour dëkkandoo yi ak lan dul accepter pour dëkkandoo yi dem na ba ci lekk gi lan ngay lekk ak lan nga dul lekk dem na ba ci sa nelaw

suñu fii amuñu bilan de santé mais mag ñi am na yu ñu fi bàyyiloo ay produit yi nga xamante ne ni ay yi naturels la yoo xamante ne ni mën nañ koy jëfandikoo mu fii nii boo ko nekkee di koy jëfandikoo yàlla mën na la muccal ba yooyu noonu nga mucc si feebar yooyu noonu laaj si la bokk am na solo lool laaj dafay faj lépp lu nga xamante ne ni ay courbature la ak euh, ay laaj bi nii baax na ci ay courbature baax na ci si ay euh, li nga xamante ne nii moom mooy euh, deret ju coagulé maanaam deret joo xamante ne dafa way ah donc laaj baax na nga koy saaf mais doo ko saaf ba mu ñor loola da nga koy saaf tuuti rek si diwlin bi xaw a sedd bu demee bay sedd nga dugal ko ci nga yëy ko nga sentir goût bi boo ci mënee am fukki doom ak benn par bés loolu aussi baax na euh, par semaine du moins maanaam par bés bu fekkente ne nii par bés la mën nga jël ñaari doom chaque jour nga diko ko utiliser gingembre bi tamit nga nga di ko ni ah, comme ni mu nek ni rek nga yeey ko alors dina tax deret bi aussi de circuler li aussi daf lay lasser. donc fay bax si sa yaram pour mu di la lâcher citron bi ni aussi amna solo lol mom vitamine C la dafa am solo lol ñam bi mom ngay yeey mais si ni nga xamante ni ñorul sais nga koy jël di koy yëy noonu di sol caaya pour affaire bi di wàcc donc que bi aussi am na solo lool donc que bi di yëy ay li nga xamante ne ni di koy lekk parce que fii ci Sénégal di lekk ay légumes mais légume bu ñorul nga koy lekk ci ni mu dafa am solo lool vision si wàllu bët am na ay ferñeent yu bëri yoo xamante ne ni moo nekk ci mbir mi nga xamante ne ni mooy carotte te nekk nii donc góor dafa war di sàmm alimentation waaye nekk ci ceeb bi nekk ci chantier yi dóor bi kii guddi nga ñëw nekk ci ceeb bi topp ci ñi nga xamante ne ni seen bagage yi toll na nii nga nekk ci di di di di ko punjuk punjuk rek xam nga daf lay indil ay jafe-jafe donc war ga dafay war si dara lekk gi. balaa nga ci balaa ngay dem ci affaire bi da ngay lekk ba suur naan ba màndi nga door ci dem donc nga xool li ngay lekk di naan kénkeliba kénkeliba dafa baax kénkeliba bu am citron dafa am solo lool pastèque nga defal sa sa sa sa ngóor a kenk boo xamante ne ni bu naturel la da ngay jël pastèque mooy maanaam li ngeen di wax xaal xolli ko dugal ko fi moom nga naan citron bi ba ci biir nga naan ko ci ba mu kii nga yëngal ko jóor ko si jigéen joo téye dina yuuxu day dina yuuxu ba waa kër gi yëpp daal di fay daje donc lingom gii nii dafay baax nga koy jaxase ak li nga xamante ne mooy pastèque boo amee jinjeer ji nii tamit daf lay yóbbu ci moment boobu noonu ak laaj bi tamit daf lay yóbbu ci moment boobu noonu ak li nga xamante ne nii moom la ñu wax betterave donc yooyu noonu boo ko utiliser ay matière la yoo xam ne ay aliments la yoo xamante ne dafa baax si góor beneen bi nag mooy nga bañ ñu fitnaal la bul nangu ñuy wax ngay wax borom kër mënuloo sa ndigg baax ba macha allah ngay wax jigéen di wax bu ñu tolloo si jamono boo xamante ne ni dañ wax ay mondialisation wax naan droit de la femme wax ay égalité yow bul nangu égalité boobu jamais au plus grand jamais bés boo demee bay nangu égalité rek yangi ngi ak ay coow problem di lay rey ak ay problème yow ngay muñ loolu loolu moo rey suñu bàyyi li nu encaissé si société yi dafa bëri tellement bu ñu ñëwee kër gi fekk fa ay soxna wala njabot yo xamante ni daf leen di fitnaal di leen mbugal am jam du am salam bugg ñu kenn dégg leen ndeysaan ñu ne mut mut ak mut ak mut ak badadi ba daal di dee ak moom donc loolu mooy li rey góor yi li nga dégg lan nga am comme jàng Euh, li ma dégg man lii laa si gën a wax lii carotte xoola sama teint man xoola sama teint damay lekk carotte carotte dama koy xolli ba mu war a fet ma lekk ko xoola sama teint mu ngi nice carotte dama ko bëgg boo ma xoolee xam ne lekkat carotte laa te tamit carotte dafa baax si sëy xam naa ni am na ñu bari xamuñu ko mais dafa baax si sëy ñaami nu mu baaxee yeneen yeneen nu mu baaxee carotte bii dafa baax boo ko man de li may diggal mooy góor ñi nañuy lekk karoot bii nañ koy coob bu baax waaw dalay lay may teint da lay may santé wér gu yaram xob

ci ñii nii ban la ciy tollool. <laughs> waaw ah, xam ngeen ne ay góor ñi góor ñi jigéen ñi sax xam nañ ah. ko ay ban la ciy tollool. ah ah ah, ah ah xam ngeen mu demee nag ah. ban la ban yow da nga yor ban la ciy tollool. moo xam nga eh, eh, eh, waaye yooyu amul taw nag moom nu mu demee nii ah. waaw yow comprendre ngeen waaye waaw xam ngeen nag nu mu demee waaye jarul may wax waaye <laughs> su ma waxee ni ngeen. su ma waxee nii. ñun ñun mënuñu si xam dara. non non non mun ngeen comprendre. man lay tollool foofu. waaw mais waaw mais wuy ma wax leen man lay tollool nag yéen yéen xam ngeen nu mu demee xam ngeen nu mu demee waaw yéen waaye. man lay tollool. ah ah gis nga ko. bii ah comme comme comme bii kii na de ah. non bii dafa gàtt waaye bii dafa tuuti waaye bii dafa tuuti. ah dafa tuuti. déet waay non tuuti na est-ce que da ngay sago Babacar. nu may def ba du ba saw ndax ki ñuy yëkkati ma bu ngan bii. <laughs> dama léegi yow yow wax ni ban lañ ci ko. ah jigéen may seetaan te bii laa moom man ah. man xam nañ koom-koom bii laay moom. moom xam may seetaan xam na ne. kan xam na ni sama soxna. Ah. <laughs> sëriñ laa de damay nekk fii di wax ab sëriñ laa de am na ay taalibe ñu may seetaan de. mais nag taalibe yi wala lu ko ma garaawul affaire de kii la amul tabu moom dañuy sóob dañuy kii rek mais te dëgg ah, ah, ah, léegi. Euh, foofu fi koy kii si ñett yi ban la ci. waaw waaw waaw. <laughs> non man motu laa moom. <laughs> 見ないよねなら見ないよねあああっぽってまにもいらねあからねこのサムシヤなきこらきサムシヤはみやさまのな yow bi ngi na ngeen ah déedéet déedéet bu jaw la bàyyi la bàyyi la bàyyi bàyyi. oui amul taw dañuy. yàq na ko yàq na ko non non non non moo la moo la bàyyi. non non dañ koy kii nag ah ah ah yow it yow it yow ah waaw waaw bàyyi ba mu xaw a kii nga naan ko nii nag.

da koy jël rek di ko booral nii di ko eh, kii ci kii bi nii ah di ko ci kii nii rek ah, bu ko defee moom dina ko mën a dëggal ah, ah, ah kii wa ko daal ah dina ko waaw du ko gaañ du ko gaañ waaye bu fekkente ne nii da ngay ñëw di jaay ngóor a nag lii rek nga man ngeen gis da koy gaañ da koy gaañ donc euh, yow waa sax maa ngi wax euh, góor ñi sama sama gars yi laay wax ah góor ñi quoi góor ñi gis nga sëy nekkul pax pax yi pax pax yi mu dem après nga xam nga nga daanu pour jeex na déedéet sëy da ngay jël sa temps waaw loolu la ñuy wax ah jël sa temps bu la neexee fleur beeg yooyu yëpp cóolu defal affaire de kii la quoi te tamit jigéen ñi dañ leen may seen sens ñoom seen sens mooy ñoom dañuy daanu lu di dix fois mais jigéen benn benn instant jigéen du daanu sax yow nga njëkk ko daan mais affaire de yambar la ah. bul njëkk a daanu jigéen jigéen da defar ba mu daanu moom ba mu daanu lu mat trois quatre fois nga bu doo a mën a nekk ak moom ah. te booy nekk ak moom bul ñëw pax paxee ko quoi déedéet yooyu noonu amatul yooyu amatul quoi dégg nga yooyu amatul def ndànk ak moom surtout jigéen boo bëggee sëy ak moom sëy bu neex dee ko yamal si bunt bi fii dee ko yamal fii. di ko di ko laal ndànk muy dem di ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk boo demee nag ba nga sentir nag ni so am na ay ay taalibe de mais garaawul quoi après ñoom dañ comprendre xam nga soo su ba nga xam ne sentir na ba naan ah oh boobu nag ngay commencé nag waaw loolu moom wàcc lal bi. voilà donc bu ngeen ma gisee tey ni may xoolee Babacar ngeen xam ne maa ngi jàng te da nga wax lu am solo. émission amul tab dafay dimbaliwaate di leen ko xool di leen ko seetaan di ngeen si jëriñ njëriñ bu bëri loo xamante ne nii daf di dimbali. Euh, tey jii nii euh, phase préliminaire si la nekkoon di wax jigéen ñi dañ leen war a may seen sens. jërëjëf suba teel bi lay commencé xoolante bi ñuy xoolante si waxante bi. tey su ma la jàppee dinaa la ñamax ñamaxee. ay moom. day neex tey guddi ki tey gi mu commencé di préparer wu loolu parce que partie bi gën a am solo nag si phase préliminaire mooy wax wax wax bi waaw tey dinaa la mhm. tey suma la kii wee hmm. mu commencé nag di sentir boo xam si affaire bi nag regard bi sax na nga ko lay amale yëf saay saay yooyu bu ngeen rombee da nga ne ko taj sa taat yi sa soxna laa wax de daa tax dabu wax sa soxna ak kuddul sa soxna yàlla xaraamal na képp góor nga xamante yaa ngi jël sa pay di ko duggal dugal si beneen pay boo xamante ne nii so ay soxna donc yéen ñi nga xamante ne ngeen di jaay ay string ay affaire fu ne ngeen di dugg jigéen ñi nekk ngeen di jëflante ah, xam naa ne mos nga si am bés ndaxte li kii damoon sa kurus si werd ba dañ si ñëw parce que sa kurus dañ ko dagg waaw <laughs> sa kurus nag dafa dagg loolu nag si émission tabu nag di ñu reeral nan la kurus nga defoon ba dagg demoon nga si werdu salaatul fatiha ba sori si ba sa xol tooy lool nga am jigéen joo xamante <laughs> ba nga xamante ku jigéen que nag ah. sa la weer dafa dagg ah. waaye mais wuy ma yow mii li loolu man maa la ko wax <laughs> dañuy liggéey ah. ñu dañuy liggéey mel ni foofu duñ fa àggagul après di nga ñu expliquer histoire boobu noonu

fu gën a xasal mu teg ko fu gën a xasal mu teg ko yow may ko ko rek may ko yow taxawal rek jox ko ah. xam nga mm. teel ko cusi xam nga boo ko mënee sex nga sex ko jërëjëf xam nga bàyyi ko moom mu géré mu géré mm. xam nga bu géré mm. xam nga ba kontaan sa soxna sa soxna laa wax ah. Ah. sa soxna soxna la nuy wax soxna la nuy wax de soxna la nuy wax

sa dëgg-dëgg su ko xam nga émission la nekk su ma waxee nii dangay def ne ay sëb la mais nag man man aw ma aw ay kii de damay damay dóor ba kii sax jëlaat élan waaw demaat ba fajar ay ay ñaata minutes yooyu ba fajar sa dina. non dem ba fajar quoi. Ah. mais man man damay flirter ba ba waaw guddi gi di xaaj. Ah. ndax jigéen dégg ko dégg ko kii quoi dégg ko. waaw jël del jël sa temps quoi ak moom quoi. voilà di ko wokkal xam nga waaw di foog moom quoi ba mu kontaan. loolu la ñu wokkal wokkal wokkal wokkal wokkal. waaw mais ban ban baaraam la ñuy wokkee. bon c'est-à-dire voilà yow yaa ngi ñëw si affaire bu am solo. waaw cest gis nga gars bii la ñuy faral di jël. bii la ñuy faral di jël quoi. di ko di ko ci teg. xam nga moom la ñu ëpp ñuy teg quoi. mais dafa am benn affaire boo xamante ne ni comme nen la nga si biir la nekk. waaw waaw si biir boo dugalee sa baaraam sa ñaari baaraam yi ba ci biir. Uh-huh. nga wàcc foofu noonu. nga pincé laal ko gis nga foofu boo ko pincé nii. Uh-huh. pincé ko pincé ko pincé ko pincé ko uh-huh. pincé ko moom dina xaqataay. waaw day reetaan danga dégguloo reetaan bi rek. ba <laughs> mu ne voilà mu ngi noonu tant que dégguloo loolu rek. xamal ne pareeguloo quoi donc voilà donc baaraam ñoom ñoom benn instant am na benn affaire bu ñu maa ngi jégalu si si si tomb bi may wax mais si bunt mi ne am benn affaire bu mel ne xaw a jàpp ñebbe. waaw loolu noonu loolu nag dañ ko soxla ñu koy laal. Mm. c'est que dañuy jàngalaate pour kii mais loolu dafa soxla ñu koy laal te loolu boo koy laal bu ko laal ndànk déedéet da nga koy téye ba nga xam ne nañ nga ko ngay fro ngay frotte.

lan moo lay naxari ci sa àddina bi nga defee sa mariage ba léegi nga am échec benn guddi boo xamante ne ni tey soxna si dafa ñëw rek man la man wala toujours yaay man parce que bu fekkee temps bi nga wax ne moom ah, moom ah. moom ngay durer ah. yaa ngi koy gaañ quoi non parce que rapport bu normal sept minutes bu yàggee ba yàgg moom la war a durer mais sept minutes kese waaw na moom la war a durer na waaw waaw da ngay jël sama xel mi yóbbu ko Dakar rek ne fa de. waaw dégg naa gars yi noonu la ñuy def. Hmm. c'est que ah. man man maa doon may moom muy pare dégg nga est-ce que dégg nga xaaral ma jënd weer ndax hmm. man maa doon may moom muy muy kii quoi damay da c'est damay soxna soxna soxna quoi jabar soxna dégg may sens quoi sens bu ñu ko may mooy moom na dem ba yëg boppam ndax bu yëgul boppam am na jigéen waxuma ñë ñëpp la mais am na jigéen ñoo xam ne bu ñu yëgul bu ñu yëgul seen bopp rek donc dañuy dañuy dañuy obliger jéem a xam waaw dem koppatu dem yaa gën a xam gars yi nga xam ne mooy loolu ah moo tax jigéen day ko flirté ba mu jëg boppam ba mu sentir ni ah waaw sentir na boppam nga doog a jëflanteeg moom moo tax boo waxee 7 minutes dëgg la rapport boo defee 7 minutes maanaam boo dugalee dugal. mun na durer sept minutes mais man laataa may dougal mun na dem 2 heures de temps. voilà donc laataa muy dougal mun na dem 2 heures de temps. donc euh, yéen a ngi toujours ci sen émission amul tabou. Euh, soxna yi dañu soxla ku len bëggal léeg-léeg dañuy waxtaane mbirum sexualité sen ak seen morom. moy mm-hmm. waral yenn jigéen yi di xeet seen borom kër parce que jigéen yene yi dañuy tok fu tok lolu rek la ñuy waxtaanee te mun na mun nga tok si sama jëkkër ni mu toll li def dina ma trois heures de temps fekk yow yaa ngi doon téye benn cinq minutes mu xeeb la toll nii la def fi joxe donc brutalité boobu daf si am solo yow da ngay di di di est-ce que da ngay def euh, man euh, def ay lay defal la neexal man daal yow na nga daj la ñuy ah. de maa ngi sant ndax bon yàlla moo ma ko def ah waaw ndax li ma xam nii jëlewu ma ko fenn fu dul yàlla xëy na béykat bi moo ko dugal sama bopp rek ma xam jigéen fu muy fu muy te ñett la ah jigéen ñett rek lay yëg ah ñett la. ñett yi waaw. ñett yi la. jigéen am na jigéen ñoo xam ne bëgguñu dara lu nga leen flirté. Mhm. flirté leen. jigéen am na jigéen ñoo xam bëgguñu dara mooy nga jàpp seen sein seen ween. waaw dañ koy sentir dañuy dañuy dem ba waaw am na jigéen ñoo xam ne bëgguñu dara mooy nga baaraam leen. loolu la ñuy wax fuck finger. fuck finger. waaw américain noonu lañ ko xam nga yow da nga maa jàngal sa benn affaire ma xamoon loolu ko mais duma jaaral ci affaire bi ndax xam nga olof moo olof moo garaaw mais fuck finger quoi. waaw fuck finger moom la boo boo gisee ñu def nii rek. loolu la quoi si li gars yi def nii loolu lay wund quoi donc américain ñi lañu mais bi dee ñun fii bii la ñuy bii la ñuy utiliser quoi mais américain yi bii la ñuy utiliser quoi mm-hmm. moo waral ñuy def nii quoi boo gisee lii rek loolu lay wund donc euh, euh, yéen a ngi toujours si seen émission amul tabu boo nekkoon président de la république balaa may ñëw si soxna soosu noonu ak ñi ngay jëflanteel si jaay mi jigéen ñi jabari jàmbur yi yooyu nan lay demee boo nekkoon président de la république lan ngay def euh, boo doonoon président de la république fii président Macky Sall toog tey si 2017 bii nii. Hmm. ñuy def émission bi. Hmm. lan ngay def yow pour réew mi pour Sénégal. lan ngay Sénégal waaw. bon Sénégal moom c'est que xam nga man nag yàlla moo ma def man ay affaire ci yooyu moom bon man Macky moom noonu sax man suñu président la waaw macha allah tubaab yàlla fi yàlla sax teg waaw macha allah mais nag man. man lijjanti moom Macky quoi man. léegi réew mi man Samb yow bu ñu la ko joxoon sa loxo tey lan ngay def. ci. dina dis boo amoon xaalis bu bëri. loo siy def voilà jërëjëf merci beaucoup man xam nga moom commerçant la man yooyu la man yooyu nag moom mooy mën a wax mbokk yëpp quoi mais comme sama ma xaalis bu man de maa ngi wax incha allah rek bu yàlla defoon ma am benn un million jàppal ni tekki tekkil naa dix non. tekkil naa ñaari personne tekkil naa vingt personnes man man benn un million tekkil naa vingt personnes ndax man damay damay dox société quoi mun naa ko wax yooyu yëpp mun naa ko barki Mouhamed damay ji nii rek mais dem rek laa am. donc agent commercial bu mag la. fii la nekk si school jobs. mu ngi yor ay marchandises ndax mën nga wane marchandises yi nga yor. waaw dama koy wane ndax loolu moom sax moom may gënal. waaw ma wane ko. waaw mais da ngay jël sama saak bi ah. sañ ya, ya, ba pare sax damay def ba mu rafet naa moom boo boo ma jëlee sax xam nga xam ne yi xam nga tubéy bi def sama simin bu baax bi yaay xale yu xale yu xale yu joxuma xale yu baax yaa gën a xam xale yu toog waaw yooyu daay dem ah dugg seen seen seen biir am gàlle yi am di la sama samay samay affaire sama samay samay parfum affaire yooyu noonu quoi. voilà léegi marchandise yi nga yor. waaw léegi bon. damaa jaay woon day day doog wàcc quoi mais yor naa fi somme marchandise ah yor naa fi somme comme euh, smart bi deux cent cinquante six smart parfum neex ak nii pause parfum neex ak nii. Ah. non daañu ko affaire commerciale la. daañu ko coono dama la koy wax produit yi nga gis ko nii day raar te sax man ma lay gëmal mooy góor ñi produit yi ñu gis ko. man maa nekkee indil te man ku ma jaay damay jël sa numéro ndax da nga da bëgg ma jaaraat fa jaay la loolu yomb naa la ngay jaayee. sama su ñëwee gis ma may xëy parfum. non mais waaw benn instant ñu koy euh, góor ñu bari loolu lañ may wax sama jabar moom may jëndal sama lii sama laa moom nga xam ne mais nag man man mosu wax génn sax parfum boobu aussi ñaari parfum yi day doog a génn man maa si toj dëkk bi. at doo génn fii parfum yi day doon jéem ñaari parfum yi day doon génn bu génnee yàggul mun naa ne bon une semaine la affaire yooyu noonu chaque jour ma jaay si xale yi jigéen ñi xam xale yi dañuy dañ ñoom ñoom ñoom yi moo leen neex quoi ay affaire kër xam nga affaire yooyu noonu quoi te dafa neex. jigéen dafa neex. 1000 francs laa jigéen bii tam pour góor la. lii la sexe. waaw sexe lay du quoi. waaw voilà pour pour pour bii góor la góor góor ñi xam nga góor ñi tamit am na ñoo xam ne sama genre ay ay dañoo bëgg seen bopp ay genre jaaykaar lañ bëgg seen bopp quoi ñoom bu ñu ko gisee bii nag automatiquement dañ koy jënd ndax lan bu koy jëndee xam nga. jigéen bu leen seet see xam nga ne rafet na lii naa dañ koy jël sax di ko teg seen coiffeuse jigéen ñi dañ koy jël di ko teg seen coiffeuse waaw affaire yooyu noonu euh, damay jaay parfum bi nag dañ koy dañ ko bëgg trop trop trop mën naa ne chaque chaque jour dinaa si jaay benn 24 deux douzaine bi chaque chaque jour mën naa si jaay 24 mu ngi tudd Victoria bii moom déodorant bu neex la. mën naa koy jàppale Babacar ku koy wóor nag bon mun na ñëw su ma naqari ma jaay quoi des fois dama leen damay dugg baatal leen fii Sacré damay dugg baatal damay dugg fépp dama leen dóor. voilà euh, mu mel ni euh, benn commercial bu mag ngeen gis. Euh, Babacar ma gis ne da ngeen di duggalante jigéen ñi jabari jàmbur yi geli jàmbur yi da ngeen dugg si salon yi da ngeen dugg si kër yi day wéet da ngeen di fay ko xaalis léeg amul femme bi fa leen war leen fay bagage am ndax mës na la arrivé. waaw da nga waxaan ne ko daggoon sa course. man nag yàlla moo def benn affaire si man. Euh, jigéen yaa ngi si émission tabu ndax dund loolu nu mel dem jabari jàmbur ne la kaay xaalis amu fi waaye. affaire bee fi nekk. Mm, non cest fi may wax mooy man. maa ngi maa ngi maa ngi wax ni góor ñi ñi may jaay seen jabar ñi nañ ma jéggal ndax euh, du question damay dem di leen gérer gérer ma leen de doxaanu ma leen de mais góor bu ma dugg si këram di dox di di jaay jabaram bu góor ko fiir mais li tax muy fiir quoi bon bon peut xel sax naan maa ngi doxaan ndax laa tax lu busi wax moom am mais nag jàppal ni jigéen bu ma toogal di ko jaay dina dinaa waxtaan ak moom ba mu jàpp ma frère. waaw parce que man dama gis bi ñu ñëwee si àdduna bi ñun léegi kër yëpp nga xam. jërëjëf man dama ñëw man maa la fi jiitu. Mm-hmm. mais yow jour bi nga ñëw ma présenté nit ñi dëkk si koñ bi. jëf waaw xam nga man damay dugalante euh, jigéen man jigéen laa am dëgg la neexul wax ndax bëgguma sax sama jabar di mais jigéen laa am man jigéen laa jaay ko. ndax mos ñu la fekk si jabari jàmbur wala ñu am si son wala yaa def lii yaa wax lii teesante dundu loolu mel. waaw am na benn jour affaire bi dafa ma xaw a dérangé wu na ma ndax euh, benn xale bu jigéen am na jëkkër jëkkër am la jëkkër mais dafa may invité si këram. jëkkëram moo fekkee foofu danaan mer mais benn instant dem na ba meratul ndax xam na ne dunduñu loolu quoi mais xale bu jigéen daf ma tibsi woon daf ma nokk woon mais mën naa ko génn si loolu ndax li nga wax laa takk am mën naa si yow mënuñoo mënuñoo def dara sa da nga am da nga am euh, borom kër man daal moom da ngaa tibb di ma jox añ reer ndékki nag laa la wax de lépp la ma daan jox feet lépp tout ñuy dem di dem di dem benn instant jëkkëram daal génn nekk fi mun naa ne sax su ma waxee sax dem mu xam ne kii la ne coorul dem Touba sax laa la wax mu wooma ma waaw gars yi kenn nekk fi coorul mais loolu ma dund noonu egg ma si kawam def ma ko loo xam ne ngeen ngeen flirté ngeen. rek xam nga mais moom loolu la loolu la bopp bi loolu la mais woo na la ne la ñëwal moom ah. intention bi mu la woowee xam nga ko yow nga ah. déplacé wu ñëw. Ah, mais man intention boobu mu woowee man xam naa ne pour. loolu yow dem nga. mais dem naa dem naa. looloo dagg sa kurus. non sama kurus li ko dagg sax boobu boobu doobu du foofu foofu fu garaawal. lan moo dagg kurus. waaw <laughs> kurus man ak jeeg laa amoon jeeg bu bu xaw a kii sax bu xaw a xam nga jeeg yi dañoo bëgg dañoo bëgg kii. bëgg xale bu góor boo xam ne góor dafa bëgg boppam te man tamit damaa xaw a bëgg lu tuuti lu xaw a yomb tuuti baax eh, mais bëgguma lu yomb bay dem nag ci de chaque instant ma dama naa dem si moom mu may xam nga ñuy bëggee di bëggee ah. di bëggee benn instant. ma xam ne yow jot ngaa ñam affaire bi. waaw waaw waaw affaire dañ koy ñam de. boo taxaw boo da nga fa. non non mais boo aw ma soxna. mais mais la taxar bu amul am soxna ñàkk non mais mais mais bu boo xësee ba am soxna bul jox loxo bul kii sax lañ la wax jox loxo rek dafa xaraam waaw mais après bi ma demee ba xam ne xam nga lii nii jëmul kër après damaa dem si benn wàlliw mu mu teg ma si kot mu teg ma si expliqué ñu nan la histoire bi demee waaw dama damaa demoon sax ba ragal ndax euh, man sama sëriñ bëgguma di ko gis ba pare takk sobe ndax dama naan euh, mais mais euh, Ousmane li tax góor ñun dëgër fit quoi dëgër fit dama daan dugg si biir néeg bi tax sama sëriñ man sama daawakat mooy sama sëriñ dama koy gis mu mu mu nekk si beneen néeg bu mu jàkkaarloo ñu taf ko te su sax su ma génnee gis ko su ma duggee dama koy nëbbatu na damay damay gëmm sax romb ko quoi ndax xam naa ni mu may gis aussi dama fa daan génn ay 4 heures du matin ay rek moo may moo may moo may moo may ci ah. damay damay ruus ndax ay xaj laay gis xam nga. man kesse may dongo dongo di dem daf may jógee may may jógee pour di ñëw moo wax suñu waa kër damay dem liggéeyi damay def nii dafa jàpp bàyyi mais xam nga jigéen benn instant dafa garaaw quoi liñ naan durub du sooy jigéen durub du sooy mais moo demee noonu quoi dem ba naan ma man waroon naa laa teel a xam baawagal ma teel a xam lii ak lii ak lii jàppal bàyyi ba naan ma sax sama jëkkër ma njëkk am loolu dafa garaaw sama jëkkër bi mu may jébbal dafa mel ni paaw sama jëkkër bi may jébbal moo nekk nii tey quoi affaire bu garaaw moo tax ne jigéen dañ koy dañ koy maîtriser dañ koy mën jigéen na nekk mag na nekk jeeg na nekk booy xale bu ndaw bu tuuti mais na ko maîtriser da ko téye ba xamal ko loo xam ne du jóge si yow dégg nga wax da nga koy xamal loo xam ne du jóge si yow. gérer ko sa baara bu ndaw bu tuuti bi ngay yàpp di ko wokkal bu mu xam ne. waxal nga ba mu xam ne moom yëg na boppam kooku du mos a jógee si yow ba pare da nga jël taf ko sa bopp waaw bu dem mag nga jàpp ko xam ne kii daaw ko def nga koy defal du lu mos a bàyyi bu demoon ba États-Unis du la bàyyi yow lay bëgg di dégg yow lay bëgg di gis. si liggéey bi nga nekk nii ñam nga ko am ñaata at juróom fukki at ak juróom. man juróom benn juróom ñett fukki at ko am fanweer at ko am fukki at ak juróom ko am ñaar fukki at. parce que man kay damay damay jégalu suñu suñu borom nag damay jégalu suñu borom mais tasaare naa. da ngaa jantal nag. maa tasaare mais nag damaa tasaare ma tasaare quoi yàqu quoi. ki gën a âgé ñaata at la am. am na sama benn copain boo xam ne may seetaan ah su ma fenn rek day xam damaa fenn ki gën a ki gën a mag. sama si ñi ma laal am nañu ay am na am naa am naa ku ma laal xam ne am na cinquante deux ans sax ma man damaa kii de. kii gën a ndaw nag. ku gën a ndaw seize ans. dañ laa waroon tëj yow. man kay dañ laa waroon tëj waaye nag laal wax laal boo xam ne dafay tëj. gaañ voilà léegi émission tabu mooy pare jeex nii doyal nañu mais est-ce que am nga loo rëccu si émission bi loo bëgg ñu dagu ko. bon euh, sax émission bi dafa am benn affaire boo xam ne. mooy góor ñi góor ñi góor ñi man bàyyi ma kenn góor ñi laay wax nañu bàyyi di topp jigéen ne danga koo bëgg di ko topp di ko topp ba takk ko topp ko deux ba takk ko noot ko am ak moom doom daanaka fay bàyyi muy tumuraanke lu te bu mu koy bu mu koy doxaan lu ne la ko doon defal mais di tax loolu quoi di tax góor ñuy def loolu quoi topp góor topp jigéen xam nga jigéen macha allah am na jigéen xam dañu bëgg seen bopp dañ leen dañ leen dañ leen topp ñu lay ñu lay dàq topp ñu leen dàq ba gis ne waa kër gi fan bi ñëpp xam nañu ni moom moo fi ne nga takk te takk sax dégg dégg nga takk boo takkee naa an deux nga fàtte ku jigéen ka doo ko defal dara bàyyi kook nag doom jar xam nga yooyu noonu. góor ñi nañu xoolaat quoi nañu xoolaat quoi. dafa am doxalin dafa am cas boo gis. bu baax bu barke Mouhamed métti na ma dama ko yërëm barke Mouhamed. ana ndaw soosu yaa koy gérer fi mu ne nii. waaw mun naa ne maa koy gérer. non pas gérer doxaan quoi. mais maa ngi koy waaw ñu ngi nemat nemat nemat teew. sa gàll mag la si man. d'accord ah, yéen a bokk ba. nañu bàyyi quoi nguur ñi nañu. waa ji daf ko doon topp waaye ñu ko amee rek. jërëjëf après xam tukki na quoi dëgg la mais na ngay wootee na ah, waa ji même quoi dafa ne bitim réew bàyyi fi jabaram. encore yéen ah. bitim réew encore yéen bu recommencé ba pare ngeen ne kenn du ko wax. Hmm. ñi ko si def nag la ñuy waxal. ku si gis sa bopp rek si nga bopp waa dëgg yàlla wax ji rafet na set na sel na ku si gis sa bopp yow la ñuy waxal. booy yi ngeen di bàyyi fii takk leen ba pare toog foofu noonu amul leen fa gerte caaf amul leen fa lu xorom cin ñëw leen ngeen xorom seen cini jabar yi nii ah, cin laa ngi xool bay dara te amul xorom xorom leen ko waaye kaay leen xoromal leen seen cin li dañoo soxlaa ko xorom cin li sëñ Babacar euh, émission bi dafa garaaw de tey dafa yéeme tamit góor ñi lay wax de man góor ñi quoi pare góor ñi non du ma pare si góor ñi man góor ñi lay dal nag tout le temps góor ñi lay dal nañ ko bàyyi quoi ma am benn femme yàggul du fan yi passé mu dema ma sama jëkkër wax na ma lu ne mu nekk taan filmam si euh, mariage am mariage quoi gis ko fi mu jaral ko lu ne mu tagg ñëw ñëw na ñetti yoon tax ko mu ko taxee jébbal ko matul un an mu bàyyi ko mais c'est xam nga góor ñi ñoom dañoo dañoo yéeme quoi leneen ñuy xemmeem quoi voilà donc góor ñi la joxoñ baaraamu tuuma waaye ndaw soosu tamit la ma def bañ def ko noonu waxu ko allahu ahlam yàlla rek moo xam Babacar émission bi ñu def tey mun naa ne mooy émission bi gën a garaaw garaaw garaaw si amul teb tabu yu ñu def ndax am nga looy réccu tey émission bi fu ne lay jaar ku ne moo lay seetaan di nga dégg lu ne li nga nar a dégg tey nan nga ko nar a gérer dama koy gérer de li ma dégg rek dama koy gérer ndax cóoru quoi man mi tuuru man xam naa li ma wax nii bon samay taalibe yi man sax sama taalibe sax ñu laay wax sama taalibe yi buñ ma mere moom dina ma dina dina xaw a kii mais après keneen koo mere grave quoi émission la quoi toujours quoi man maa ngi sant waa Pouna ah, maa ngi leen di gërëm ah, euh, sama soxna gees mu ngi fay mami Faye mami Ba Faye kooku dafa baax si man barki Mouhamed loolu dama koy wax fépp dafa baax si man lépp la may defal amul lenn loo xam ne mu ngi bàyyi di ma xaar déedéet lépp jël na ko jox ma ko billaay wallaay keroog sa euh, samedi rek moo euh, dimanche moo su mujj billaay wallaay aussi maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy kun barke mu xam ne maa ngi koy ñaan yóbbu sama gorom maa xaman man loolu laa namm mais Jama Sall maa ngi lay ñaan yóbbu la maa xam billaay wallaay. voilà man soo ma defalee duma ko bañ dinaa ko nangu waa am jom la waa ju baax la liggéey rek lay def. damaa bëgg lu yomb loolu moo wax sànq bu mu tax ngeen foog ne moom dafa toog jigéen ñi di ko jox de ni muy jantal nii dóor waar rek lay def liggéey rek lay def deful leneen jigéen ñi nag bu leen yàlla nootatee wala nattootee ba ñu gis koo xamante ne nii bëgg nañ ko bay def si moom nañ ko ko jox ak yéene te bañ a am arrière pensée waaye tamit jigéen ñi tamit bés góor ñi tamit bés bu leen yàlla dimbaleetee ba ñu am jigéen ju noonu bu ñu yaakaar ne jigéen ju bon na de mais nañu ko jàppale tamit dimbali ko xam ne kii daf ko bëgg te yàlla tax am ay moyens di la dimbali waaye bu mu tax nga ne yàcc na yasar waaye tamit njëlbeen tamit du wéy defaguñu un an de mariage moo soxna si. donc <laughs> mun nañ dem fee un an deux ans trois ans mu mel ni <laughs> du woon moom mu indi yeneen ji ko yàlla tere tere ko bu mu am mais faral nañ koy di gis lu bëree bëree bëri bëri lan ngay tëjee. dañ damaa bëgg ñu jël sama numéro téléphone.

Ah, jaay rek lay def rek lay def. jaay rek ak ak mu ko comprendre. jaay rek ak mu ko man gis naa ko affaire yi ma piicalal nii. dama tàjjil merci beaucoup jërëjëf loolu technique. non technique la technique bu garaaw la. non lu leer. lii rek lay def. ana numéro bi mu ngi foofu noonu. mu ngi fii mu ngi si kon jeex na man tàggoo naa sëñ Babacar tàggoowal. waaw euh, yow moom Ousmane yow moom sama seex bi. yow sama seex bi dëgg-dëgg lu ma lu ma. lu ma lu ma wax rek. sama bopp laa ko wax. baax rek lu ma def rek sama bopp laa ko def. sa xol mooy sama xol. baax dégg naa la de mais yow Baye Moussa. yéen xam nga nu mu demee quoi. parce que mu xam nga nu mu demee quoi. ni ma jàppee Moussa moom la jàppee. mbàkk bi loolu la jàppee da neex a jàpp borom baax góor ñi sax buñ la dañ lay bëgg. ay ah non waaw mais allah yàlla ya, eh, moo dogal si yow. ah macha allah maanaam leer du fatiha boobu nga yor noonu. Nah. dafa am solo. voilà dara dina ñaan aussi. maa ngi koy wax mag buñ ko nañ ko def 70 la bari na ndax oh émission bi mu ngi jeex. waaye dimbali ma rek wax ko ngir bis la 70 bi mooy góor ak jigéen mag ak ndaw bu ko mën na ko def mooy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mais bu mu ko def bu mu ko defee comme exemple oh kurus bu rafet réer na ma di ko gis may jégalu de oh kurus ko réer na ah voilà jërëjëf merci beaucoup jërëjëf man fii sama kurus la gis xam ne d'accord na nak waye nak defaraat na ko deg a ciou mais 70 bi goor ak jigen mak ak ndaw na tiyé fi 70 photo sama li bi moy nek poster bi ya ah, bi bi waaw na tiyé eh wax ni ni nak barke muhammad barke cheikhuna tidiane kay jëfé wax ni ndax xam nga il faut ñu wax ciou mais dañ koy ci quoi 70 bo defé fatiha salat fatiha bu dé mënul salat fatiha nga def salat bu la neex salat al nabi mais na nga def subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ba soixante-dix ma nga tëjee ko waat salaatu faati wala salaatu bu la neex ba pare nga ne inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaam wa salaam wa salaam ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin dafa am benn affaire bu am barke Muhammad amal bàkkaar boo mën a am si àdduna boo génnee àdduna man maa la ko wax après cóolu am na ñoo xam ne nag jàng nañ supérieur nañ ñoom après nañ dinañ wax quoi mais cóolu bàkkaar bu mën am si àdduna subhanallah wal hamdu wala ilaha wala akbar bu dee balance su bàkkaar dafa taxaw ni jàppal ni moom balance am moo gën a moo gën a moo gën a biis ay ay balance su bàkkaar kenn du yàlla du ko sax xool ay bàkkaaram fii boo ko jàppee barke moo xam ne yàlla du xool say bàkkaar est-ce que dégg nga wax. ah ngay waxee. non xam naa damaa xam. waaye nag dama koy jëfee de c'est que mënu ñàkk sax bu di su ko sa laata tëdd damay damay julli damay def damay def lépp toog nag di wér rek nag ndax ñun ñun taalibe ñun lii lañ xam bu doon dañu am foo xam ne dafa dugg si aal yi émission bi jeex na mais nag dafa dugg si aal yi waaw ma bu doon am na bu doon dañ koy wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu daan bu mu doon dem di reñaan di dem di jëli li koy yàlla di jox cheikh cheikh la ñuy jox ñun barke mu xam ne. jërëjëf cheikh ba garaaw. jërëjëf ma ko waxee rek damay damay yëg dama ko dugg trop barke mu xam ne. naa def feeñ waay. jërëjëf feeñ laa bëgg a dem. dina dem feeñ waaw yal naa def feeñ waay. Ah. jërëjëf sëñ Babacar. jërëjëf bi ah waaw. jërëjëf sëriñ Ba voilà asalaamaaleykum wa wa barakaatu. you